man nitam la Serigne Gueye Diop nitam la ak Samba Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen donc du nekk défiance. Mhm. du nekk mënul nekk. défiance mais, mais maintenant divergence day am parce que. Oui. ambition bi ngay amal sa réew mun nga xalaat ni dëgg-dëgg lii ngeen def pour réew mi naam lu baax la. Mhm. mais man gëm naa ni am na leen luy metti suma biir réew. man nag gëm naa ni il faut que ñu waxtaanee loolu il faut ñu saafara loolu. loolu def du mais euh, ñu bëri euh, Moustapha. waaw ñu ngi jàpp ni euh, affaire bi ni tëf yëngal la nii rek mais yaag yaag Macky réeroowu leen. parce que mënu nekk pendant douze ans tout sucre tout miel. Mhm. tey mu war a jeexal nguuram rek yow nga taxaw di ko. défier parfois parfois donc nag gars yi waaw bon waaw mais ba léegi ne pas au grand jour. vous si, n'avez jamais été en conflit ouvert avec le président de la République. waaw tey di ñuy nee nañu réeroowu leen. daf la jël pour candidat pour au cas où second tour am wala leneen nga mën a ñëw rejoindre le camp du pouvoir lan nga si tontu. d'abord Pierre Edouard donc comme ni ma la waxee mooy moi je suis victime déjà d'une chose mooy la jurisprudence élection locale bi amoon. waaw bi nga demee sa su bopp noonu. waaw mu ne wala pare na woon. waaw te li tax mu pare na ma wax na ko wax na ko publiquement du dëgg moom moo taxaw publiquement ne moom moo permettre ma dem ndax. bu nuy waxtaan ñun suñu biir xamoon na ni man maa nekkoon ci kanam ci sondage yi mu amoon donc mu ne nañ bàyyi moon ma dem ñooñu nag bu ñu d'accord lee puisque le la démarche était que ñu jox au maire sortant mmh. le manteau de Benno Bokk Yaakaar yàlla xam na ni bés bi ñuy décider ni do di moom mooy yóbbu bulletin Benno Bokk Yaakaar instant boobu lañ ma ne mën nga demal sa bopp mais man cër gi may jox aussi njiitu réew parce que njiitu réew du lu ngeen di waxtaanee ngay teg ci ci marché bi bi ma teg dëggalee suma candidature Sénégal yëpp gis nga moo tax man la parfois c'est en dents de parce que déggoon nga ay journaux yu bëri yu nga xam ne ils ont dit dama ko défier maa ngi ne teg noppiwu tontuwuma parce que boo ko si xeeg gor dégg nga xamal li nga xam rek nga toog mais puisque attaques yi métti woon na naan woy on va l'amener à l'échafaud wala yu demee noonu moom moo taxaw ne kii man maa autorisé mu dem te loolu avant jongante yi la donc loolu moom j'en suis victime. Mm-hmm. ñu bëri dañu naan puisque defoon nañ ko en deux mille vingt et un. dañ ko defaat deux mille vingt koy defaat te yàlla xam na ni. Mm-hmm. loolu amul. déggoowu leen benn yoon ak le président yàlla xam na ni loolu amul. est-ce que quelque part Mame Boye Diao peut-être dans les réflexions du président euh, xalaatul ne euh, y a un électorat boo xam ne dafay échappé euh, ci candidat wu Benno muy l'électorat jeune. am yeneen euh, euh, regard yu yeneen visage ñu bëgg a gis mu ne bon maam booy jaaw a dem xëy na dina mën a téye cet électorat là. Ah, est-ce que réflexion boobu la su ma su ma téye électorat jeune bi comme ni nga ko waxee kon man damay dem qualifier deuxième tour. Mm-hmm. kon kay du ma nekk ku yekkale après. parce que sont plus nombreux. mën nga nekk essayer aussi son véritable candidat. non non moo tax ma ne la c'est des conjectures xam nga parce que lui a le, président Moussa wax na ne dafa am un candidat de cœur un candidat de raison. wax na ko wax na ko ne buy buy choisir du la xol bi mooy choisir mais la a raison. waaw mais donc le candidat de cœur wax bu dee nag ci xol bi la. oui ñëpp xam nañ su ñu suñu suñu biir <laughs> xam nañ Macky sal kan la bëgg ci biir xolam. Mhm. te du man te loolu bëgg na ma de. Mhm. mais xam nañ ñu mu gën a bëgg parce que Macky dafa am ñu mu yàggal. 2008 wala sax avant muy ba muy nekk PDS. dafa am ñu bëri yu jaar ak ñoom fu métti. am ay jaar jaar. waaw te te nit gor la daal moom. sal bëggul nitam mere ko. donc xam naa ni bu dee ci xani candidat de kër la. mun naa am bokk naa ci kër yi de waaye kër <laughs> bu mag bi du man. kan la waaye. kan la non du ma ci du ma ci wax parce que xëy na euh, loolu dina ko yaaxal te je veux pas. <laughs> mais je dis simplement que élection yi ñu jëm si on faisait un peu de science politique. elles sont très indécises mooy kenn xamul luy am ëllëg du dëgg mm-hmm. d'abord temps bi gàtt na ensuite tous les candidats sont presque dans l'impréparation mm-hmm. du dëgg mm-hmm. donc ku ne mën a jël ndam donc je ne vois bu dee moom coobare boppam la woon lu tax moom Macky Sall muy jël risque di émietter électorat du ko def parce que bu boobaa xëy na ñun ñëpp bu ñu àndoon bu ko wóoroon ni ñun ñëpp bu ñu àndoon dinañ gagné mais moo koy gënal au premier tour mais kenn xamul ndax on man je gisuma benn magie politique bu may woon tey nii. Mhm. l'élection à venir va se jouer à un tour. yaakaaroo ko que l'élection se joue à un seul tour yaakaaroo ko. non yaakaaroo ko xam nga lu tax. Mhm. l'échéance est courte te élection présidentielle comme je le dis c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec son peuple mhm. dafa am capital booy indaaleel sa bopp. le candidat de Macky Sall part avantagé. parce que il a Benno Bokk Yaakaar. il a Benno Bokk Yaakaar la l'appareil Benno Bokk Yaakaar c'est dix ans ou douze ans d'élections successives yi nga xam ne mu ngi koy gagné. ah mais électorat bu effrité wu la au mais mais donc de fait. mën nañ jort ni xëy na mun na jàll déjà d'office au deuxième tour. mën na qualifier mën na qualifier deuxième tour mën nañ ko njort. mais pas pas mu gagné ko au premier tour. mais tey loolu laa wax tey dafa am li nga xam ne jege na trop. torop diggante mois d' octobre ak ak ak février pour que ku nit génne xam nga tamit élection présidentielle dafa am toujours li nga xam ne yaa ko moomal sa bopp hmm. quotient personnel comme quotient personnel hmm. boo xoolee le président Macky Sall élection législative day jàll hmm. bu présidentielle ñëwoon moom son quotient day yokk même bi ñuy 2019 2017 on était à pour cent au maximum. ci élection mais moom il est venu avec son quotient personnel. donc bi bi ñu jàll législative Benno est à 46 euh, pour cent. et on disait que bu Macky Sall bokkee son quotient dina ko yóbbu au moins à 51 pour cent. oui mënoon na ko yóbbu à plus que ça. xam nga lu tax mhm. n'oubliez pas que les les locales étaient très proches des législatives. te politique non non wujjee gi ci ñi ngi bokk parti la gën a amee doole. te man j'avais dit toujours dit. bon malheureusement daf ma ne yow da ngaa bëgg a nekk maire Kolda rek moo tax nga bëgg ñu teel a def local yi dama ko ne woon bu ñuy paree présidentielle nañ def local yi parce que il fallait que les blessures se passent entre les locales et les législatives man loolu laa gëmoon mhm. mais local yi dafa jege woon législatives yi ba ku nekk tamit bu mënoon galgal moromam ci goxam da ko doon def mhm. donc ça aussi ça a donné ce résultat la mais moom bu nekkoon candidat légitimement mënu nañ ko ñefe ba mu jàll léegi nekk ko mais le candidat de Benno mënul indi ce conscient personnel là. waaw mu ko leen mën a may ñu jàll cinquante pour cent mënagu ko mënagu ko. je parle pas du candidat intuitif personnel. oui oui. Mm-hmm. d'accord je parle pas du premier ministre Amadou Ba. l'ambition clairement affichée par le président mooy jàll au premier tour. mais xam nga loolu erreur de jugement la. le candidat qu'il soit. dina doon am déjà benn affaire bu nga xam ne day nekk jafe-jafe ci moom président Macky Sall moo amoon une base de données exhaustive. du personnel politique avec le lequel il travaillait. lu dëgg candidat Benno bi du ko am bu mu mun munti doon donc le temps que muy muy war a gis ñenn ñi di di am dafa gàtt trop. Hmm. loolu donc mun na nekk moom mun na qualifier deuxième tour. mun na nekk keneen aussi qualifié dans les flancs de Benno Bokk Yaakaar. mun na nekk ku mel ni yow ku ni man. ku mel ni keneen du man rek. Hmm. xam nga aussi da am posture d'humilité man nee naa la li ma ci gën a intéressé mooy il faut ñu waxtaanee réew mi. ça c'est fondamental te loolu laa mënul négocier faut ñu waxtaanee réew mi mais mais li ci des projection politique dafa am cristallisation des des des électorats actuellement du dëgg am na ñi nga xam ne ak nu mu ti demee xam nañ fu ñuy voté te d'habitude élection yu mel noonu jongante yu mel noonu boo doon jege même jour vote bi nit dina doon yeew war a dem voté ji du xam ku muy voteel mais fu mu nekk nii ci ñetti at yi ñu weesu nii mhm. dafa am genre repli bu nga xam ne soixante à soixante-dix pour cent des électeurs mhm. tànn nañ ba pare waa ji na nekk candidat wala mu bañ a nekk candidat ñoom tànn nañ. tànn nañ pare ça c'est donc loolu mooy indi ay inconnus yu bëri moo tax nag il faut à tous les talents de s'exprimer à tous ceux qui ont une ce euh, li ñu ko dégg muy wax en tout cas depuis ñu tànn ko mooy la continuité li président Macky Sall doon def moom da koy wéyal est-ce que maam booy Diao daf ñuy indil la continuité man aussi dama bëgg a li président Macky Sall doon def wala man nga nekk pendant douze ans ci benn régime ba pare ñëw ne je vous propose un discours nouveau. qu'est-ce que vous allez dire lan nga lan ngay wax sénégalais pour ñu tànn la bañ a tànn un candidat de Benno qui propose la continuité mm-hmm. oui mais maintenant parce que la continuité a un visage mm-hmm. du dëgg c'est Amadou Ba non non pas pas, pas individuellement en visage mm-hmm. les axes programmatiques sont connus du dëgg oui wax ah, maintenant ñun tamit lu ñuy indi danañ ko gis et je ne crois pas je ne crois pas que le candidat de Benno encore une fois ñëw campagne te du indi ay idées gëwuma ko. gëmoo loolu. non du tout. Hmm. yow personnellement yan idées yu bees ngay àndi ban discours bu bees. d' abord man dama bëgg sénégalais yi jubo hmm. jubóo. jubóo wuñu Moustapha. xam nga ni seen plateau yi léegi gars yi sax léegi-léegi ñu gedd. régime bi nga bokkoon am na ci responsabilité bu rëy rëy. li xew ci réew mi nii. non il faut il faut aussi tirer les responsabilités de deux côtés il faut pas dire régime bi rek ñëpp a ci bokk. mais maintenant les hommes politiques ne doivent pas prendre les pourquoi ils vont prendre les Sénégalais en otage pourquoi politiciens yi foog ni ñoom ñoo am droit yee fitna pourquoi grève du fi am grève des travailleurs du transport grève des travailleurs de la santé ou de l'éducation ba mu indi fitna ci réew mi moom moo am ci yeneen pays yi ñun politique rek mooy tax ñu am fitna pourquoi donc ñu nañu ñu yar politique yi d'abord man mm. loolu pour man loolu première mission bi la mm. dañoo toog ci ay jamono yi nga xam ne suñu ay yaay yu bëri ñemetuñu woon bàyyi seen doom yi ñu génn man dama gëm ni il faut ñu jubóole sénégalais kujjee mën na am ci wàllu politique mais warul nekk non te loolu ñëpp war a def effort pour loolu moi je prône ça wax naa ko benn ñaar Moustapha mhm. dañoo nekk ci réew bi nga xam ne boo ko seetloo li may woowee les dynamismes démocratiques les dynamiques démocratiques day am génération bu jóg indi crise politique nag de mhm. parce que c'est ça le drame en fait celui qu'on choisit après pour en faire un président day fàtte ni ay nit a yëkkati woon coow li mm-hmm. mais toutes nos alternances boo xoolee elles ont été précédées de graves crises politiques ñu indi Ablaye Wade du dëgg mu ñëw avec son quotient personnel mu foog ni moom li mu xalaat la war a doxalee réew mi mm-hmm. du dëgg génération bi doon xeex jële fi Abdou Diouf beneen bi ñëw fukki at après màgg nañ mm-hmm. yaakaar nañ ils sont déçus pour la plupart ñu ñëw ñeneen ñi nga xam ne jot nañ màgg ci diggante bi ñoo dooleel ñoo ñu génnee fi Ablaye Wade mhm. c'est la même dynamique qui allait avoir lieu en 2024 li ko indi li ko indi mooy le Sénégalais kon doit prendre en charge est différent du Sénégalais qui est pris en charge dama lay wax benn mhm. affaire ci pour pour pour ci ay misaal mhm. dafa am presque fukki million ba fukki fukk ak ñaari million yu sénégalais yi nga xam ne war nañ leen a gëstu mooy ñan mooy béykat yi mooy sàmmkat yi mooy nappkat yi mooy les cent cinquante métiers de l'artisanat xam nga lu tax béykat yi sàmmkat yi nappkat yi artisan yi ak ñii nga xam ne ñu ngi nangu ñun Sénégal ñu nekk ci jàngum alxuraan ci daara yi dafa amul mécanisme d'absorption du potentiel bu fa am benn par benn rek ma jox la ci ay firnde yu ndaw. boo jëlee béykat yi tey. boo jëlee béykat yi da ngay xool ni depuis suñu indépendance bi léegi saa yu nawet jege di nga dégg jox nañ leen semence. Mhm. jox leen matériel engrais matériel agricole ak yooyu. Mhm. te du tere après ñoom bu ñu amee ay bor sax état bi moo koy fay ci lu gën a bëri. Mhm. lu dëgg. donc ñu créer leen benn logique de d' assistanat bu nga xam ne amuñu sax comportement économique. mais est-ce que xam nga à côté que beaucoup de jeunes sénégalais bëgg nañ bay mais mënuñu bay xam nga lu tax mënuñu mënuñu bay amuñu suuf mais suuf dafa manqué suñu réew da ngay dem yéen wala nga dem côté Tëngéej ay ci euh, comment on dit ci ci ñaay yi da ngay gis ay jeunes sénégalais yu ñëw fekk benn Moustapha bu nga xam ne am na verger mhm. tollu vingt hectares ñu ne ko abal ñu un hectare ñu bay ñu bay ñu séddoo waa léegi doo ubbi pexe foofu nga jël si gox goxaati village bu ne nga jël village bi à l'orée du village mooy li ko wër nga jël créer ay domaines familiaux yu deux hectares trois hectares yi nga xam ne wóor na la ni ñoom ñoo ko moom nga aménager ko nga indi fa ndox ñu mën bay noor bay nawet yomb na en terme d'investissement wala pour yow pour yow jafe na jafewul du tout loolu xam nga lu muy indi fixe suñu ndaw yooyu parce que dinañ xam ne ndekete mën nañ ci am xaalis gu dul jeex benn exemple laa la jox beneen bi boo otul sax yow noonu la est-ce que sa sa kaw sa terraasu kër amoo fa ay xar. <laughs> non di yow doo yar ay xar. <laughs> Ah, mais tey. mais li ngay wax ni moom la président Macky Sall comprendre moo tax mu def les domaines agricoles. Euh, non non non mais ba léegi jurul les résultats escomptés. je vous vous parlez du domaine agricole. moi je dis. domaine agricole déjà pour en faire avec ces niveaux d'investissement c'est énorme. pour yow il faut renforcer l'agriculture familiale. non il faut à la terre soit une réalité pour les jeunes. Mhm. d'accord fondamentalement il faut que nga permettre à chaque village y a pas y a des zones où y a pas de crise démographique donc ñooñu enjeu suuf bu du enjeu foofu boo demoon Fuuta boo demoon Casamance boo demoon Jolof boo demoon Bawol ay yooyu yëpp mën nga am ay zones yi nga xam ne nii yaa ngi béy mais soxla nañ ñu jox leen suuf nga mais boo bëggee mu dox il faut que nga utal leen ndox aussi ñu bañ a dépendre ci ndoxu yàlla bi rek mhm. donc ñu mun leen defal ay forage c'est pas énorme en termes d'investissement nga leen ils vont des rentes loolu moo différent nga jël tamit à côté de cette agriculture la mhm. gis nga ni ay sénégalais yu bëri ñu ngi def ay agriculture intensive. Mhm. voilà mais il faut créer des mécanismes de stockage il faut créer des mécanismes de conservation mhm. yu am doole. parce que euh, xoolal crise u soble bi mais yéen xam ngeen ni bu soble buñ ko paree mais yu bëri dañ koy